ah waa maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci di kontaan ci interview bi gitu, trop parce que bo xolé tamit mass bi tay metti na metti bo xamné euh état terrain bi tamit ci la bok état terrain bi ci la bok mais bo yi tamit woné nañ physique aussi woné nañ physique té dal nañ aussi lolo tax ma gëna ma gëna insister ma gëna insister ci victoire premier mi-temps bi gis nañu tamit né eh, amna ay occasion yo xamante eh, mom nga waron rëyee match bi loo ko jàpp. Euh, attaque sama attaquant yi tamit euh, am nañ am na am na am na tuuti défaut quoi parce que sama attaquant yi moom saa yu rate bal rek day déplané wu ci match bi loolu loolu moo koy gën a rey quoi mais attaquant bu mag la ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy encouragé yooyu bañ ko dalati bu bu bu fubalee tamit ah bu fubalee bu ratee tamit mu gën a nekk ci match bi waaw loolu loolu daal mooy problème am mais c'est un grand attaquant. waaye eh, gis nañ tamit ne mag yi am na foo xamante ne tamit xaw nañ la faa ci expérience defe naa moom la leen jaay. waaw waaw mag yi tey mag yi tey saa saa ñuy fubal daal expérience bi expérience bi ça joue quoi.